Jar Jar. Jar Jar. Jar Jar. Jar Jar. RDV. Billahi Sollai. Alhamdulillah. Why mission Jar Jar. Oh, wow, Rodolfo, oh, wow. Billai, Billai Sollai, <laughs> Baccarà Sollai. Grazie a tutti della band, saluti al Senegal e a Jar Un saluto al Senegal e a Jar Un saluto a tutto il Senegal. Grazie Jar Jar. Vous bien la musique e ciao da Jar Salam salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi seetaan fii si RDVS seen émission Jaar Jaar émission Jaar Jaar nag tey ñu ngi ñëw dem ba Thiès seeti sëñ Ablaye Faye sëñ Ablaye Faye nag waa Thiès bi yëpp xam nañ ko Sénégal Dakar àdduna bi yëpp xam nañ ko bu fas yéene waxtaan ak moom fépp foo xamante ne jot na fa jaar fépp foo xamante ne xeelam demoon na fa def ba mu nekkee tout temps souvenir bi mu fa jot am yëpp mu fas yéene partagé ko ak yéen yéen ñi nga xamante ne ñuy seetaan sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu waa euh, lii euh, nan laa ko mën a wax sax RTV mhm. di euh, rafetluwaay seen déplacement bi nga xam ne ñëw ngeen ñëw déplacé nga ñëw seesi ma mhm. di ñuy waa Thiès ak Madina Fall ak waa adduna bi yëpp daal ak kilifa aado yi Uh-huh. tey ñu ngi ñëw seet si la fas yéene waxtaan ak yow di kontaan lool ci dalal bi ñu dalal. Uh-huh. ak invitation bi. Uh-huh. ñu kontaan ci trop trop. fas yéene waxtaan ak yow. le fait que nga nangu partagé ñun lépp loo xamante ne du nangu ko moo xam lu métti la moo xam lu neex la. ñu siy kontaan trop. mais tey jii ban souvenir nga mu mën a jox. suñu Ablaye ba mu nekkee tout tànk am huit ans. ba fu mu yegg si nii tey lépp loo xamante ne fàttali nga ko rawatina nag si say ñaari waajur yi nga xamante ne. ñoom ñoo la jur. lan nga a wax ci ñoom. waaw lu ma lu ma mën a wax si ñoom comme lu ma waxee xam nga yàlla bu la boolee ay kilifa yoo xam ne macha allah ñu am man yërmande la ak ñu mun a jàppale euh, njaboot la te ñu bëgg njaboot la loo da nga si sant yàlla bu baax. parce que wax dëgg yàlla sama yaay sama papa nekkoon na loo xam ne ma wax dëgg yàlla ñoo ma jàppale wax dëgg yàlla ba jëlee ma fi ma nekk ñu yóbbu ma daara ba mu yóbbee daara nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla jàng naa ba yàlla def na jóge naa foofu ñibbisi naa. wax dëgg yàlla sama yaay nag nekkoon na koo xam ne wax dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla wax wax sax du ko du ko rew day julli day woor day def lu lu baax rek day ko def foofu fekk mu ngi lii wante xëy na comme ni ko waxee bu sa loxo jutu gannaaw moom day metti ba li nga war a def yëpp yëpp dëgg dëgg lépp lépp day xaw a jafe. Daara def nga fa ñaata at. waa Daara def naa foofu lu tolloo treize ans waaw def naa fa fukki at ak ñett. après ma ñëw parce que bu mu amee yaakaar naa bu may dem daara maa ngi amee huit ans waaw te bu sama maam mu ngi doon dund sama maam mu ni sama papa kii jël ko nga yóbbu daara parce que xale moom bu tollee si jàng dama yóbbu ko si daara nga dem euh, jàngi jàngi mu dem jàngi te wax dëgg comme lu ma ko waxee xam nga boo nekkee ñoo xam ne ay mag yoo xam ne doon seen loxo yu seen gannaaw hmm. day metti si loolu parce lu ma ko dëgg yàlla jamono yooyu boutique la doon jaay hmm. muy jaay boutique jaay boutique xam nga rek yenn saay euh, boutique yi yenn saay ki nga xam ne moo ko moomoon moom lu nekk la ko si def ba boutique bi daanu waaw ba boutique bi daanu wax dëgg yàlla mu jóge foofu di liggéey si maçon waaw duggee maçon lu nekk liggéey na ko ndax pour njaboot bi am lu muy dundee hmm. parce que nekk na loo xam ne lu métti la woon wax dëgg yàlla si sama côté papa moo taxoon xam nga rek te xam nga nga boole ay njaboot ay tout tànk yoo xam ne doo leen mën a yor ñoom ñëpp day baax sama maam nag mu nii ah li gën daal muy gën benn sa doole juuti gannaaw pour nga dundal xale yi jëlal xale yi yenn nga yóbbu leen daara man ak sama rakk ñoo demoon daara hmm. yeneen yi nga bàyyi leen si kër gi xëy ñoom ñi jàngi xam-xam te parce que mënoo yor ñëpp parce que hmm. euh, koo xam ne da ngay xëy cin nga këpp cin nu ko mënee sax muy doo togg daal xam nga loolu day hmm. metti day métti moo taxoon daal mu mu mu nekkoon sa ay jaar-jaar yoo xam ne daal lu métti la boo xam ne mënoo toog fii dafa expliqué. parce que suñu jaar-jaar moom nekkoon na loo xam ne lu métti que du fi ñu dëkkoon dañ doon abal dañu doon abal kër gi. moom ni ko fi ñu dëkkoon dañu abal kër gi moom ni ko te xam nga rek buñ la ablee kër gi ñii ay danoo tabax yow néeg ñax rek nga fa yor benn néeg ñax. mooy néeg sama néeg papa benn rek. Mhm. léegi xam ne nekk de bu tawtee day tooyal matelas yi. waaw tool matelas yi tooyal lépp loo xam ne moom parce que dañuy toog ba di dañuy xëy toog ba ba xëy dañuy euh, dañuy xëy toog ba euh, lii mu sebet ñu doogam lii ñu doogam di génn hmm. parce que ndox mi nu muy tooyee yére yeeg dàll yeeg lépp loo xam ne ay matériel la da koy tooyal hmm. kon xam nga loolu lépp sant yàlla la te bu demee tey ba mu lépp bu jeex sant yàlla la mais instant boobu booy xool say waajur nekk foofu mhm. muy taw taw bi di taw seen kaw muy tooy te mu leen na yow tout tànk nga ci mënoo ci dara instant boobu lan ngay sant may sentir kay eh, maa ngi ñaan yàlla na ma yàlla dimbali ba ma jàppale leen wax dëgg yàlla parce que loolu day metti parce que nu muy tawee après sama yaay après day jug si guddi gi mhm. yor peel man ma jug si guddi gi man yor peel mu sama papa jugu noonu encore ni waru néeg bi di jàll ndox bi muy jàll parce que danoon temps bay laal matelas yi yëpp lépp bu ñu xëyee weer waaw dañuy dem ba instant ni pour nga togg foofu añ sax wala nga togg fa lii sax problème la parce que munoo munoo parce que boo xoolee boo xool too noo boo nekk si néeg bi boo xoolee si kaw da ngay seen asmaan bi asmaan bi ndax néew doole. néew doole da nga seen doole yoo xam ne problème sax pour nga jën tuwaal loo ko muuree sax problème la. moo taxoon loolu moom nekk na loo xam ne moom li ma gën a marqué ci si sama jaar-jaar. ci moment yooyu ngay dund mu metti lool te mu leer na gisoo fenn foo xamante ne mën nga fajee problème bi sa xel musul dem nga def lu ñaaw loo xamante ne dina la mën a may dara maanaam nga dem sàcc wala ngay agressé def loo xamante ne ngeen xaaral ma def lii parce que yoon bi moo gën a gaaw. non la dëgg yàlla. wax dëgg yàlla moom def métti na loo wante yàlla def na xiir dimbal na ma ba xiiruma si def lu bon wala def lu ñaaw pour am alal wax dëgg yàlla parce que métti na lool moom parce que comme lu ma ko waxee parce que loolu après laa dem daara ñibbi si naat maa ngi ñibbi si quatre maa ngi ñibbi si deux mille onze jàpp deux ñëw encore fekk lima ma bàyyiwul foofu laa fekkaat foofu nga fekkaat waaw xam nga bu nekkee xale nga dem yóbbu la daara ba nga ñëwaat fekkaat foofu lu metti loolu mhm. day metti ma continuer jël sama pousse-pousse xam nga ba xam-xam ngeen pousse-pousse yi mhm. waa jël di pousse ni may mhm. fay far fukk dërëm yaay saay nga nga def saaku saaku saaku yi ba mu ëpp ëpp la doole mu tuur doo ko attan ko yenn saay ndox bi xam nga yenn saay day tombe nawet mhm. danoon tombe nawet nga xam ni léegi yow miinoo ko parce mhm. que da ngay ñëw miinoo la waa bëgg nga loo yóbbu sa wa kër rek mhm. loolu wante da ngay pousse ba sa yëre tak takk yëpp day tak takk muy ndoxu ndoxu taw bi ak yooyu yooyu ak salte bi yëpp day takk te encore fukk dërëm la lay fay boo wàddalee bagage yi borom bagage yi yuuxu la wax lu tax ngay def lii ah lu tax lu def lii essan lii laa la fay li fekk cent franc la ne waroon lii mu mu mer gedd mu bañ la fay dara wala mu mu jox la fukk dërëm xam nga loolu day metti fekk tayoo ko fekk tayoo ko parce que doo ko attan bagage ñooy bëri fekk yaa ngi tout temps wante yaa bañ sàcc comme ni nga ko waxee mhm. yaa agressé yaa di bugg daan sa doole mhm. boo fa jugee encore nga dem si wotir yi mhm. man li fu fu ma jaar métt na jikk jikku ma rek yàlla teral ma nga jugee foofu dem si wotir dawal naa wotir nit day wax parce que jaar-jaar nga wax. Mhm. dawal naa wotir. Mhm. waaw dawal naa wotir di sa am par par par trois cent. Mhm. yenn saa yi sax nga xam nga booy fàttaliku sax da ngay dem ba instant li parce que am sama benn mbokk boo xam dafa yoroon wotir ak ak wotir ak lii la eh, wotir parce que ak ak fas. léegi ya, de moom yenn saa jox nga dem daw am ci wala quatre wante jour boobu daf maa ñëw fekk moom moo jël fas bi ak butir bi dem Mm-hmm. léegi bu mu ñëwee bu mu ñëwee ma wax ko ah léegi de est-ce que doo ma abal ma dem dawal si parce que damaa xiif nii wax dëgg yàlla damaa xiif bu ma soño nga abal ma ma dem daw si am lu ma lekk mm-hmm. mu bañ mu ni non non doo la ko jox mm-hmm. doo la ko jox moo ko dimbali ma te yàlla rek tax parce que boo xoolee il faut ni wax ko jaar-jaar la parce jaar-jaar nga wax wante te kooku tey moo ak paa bi sama paa bi ay mbokk lañ ñoo bokk si yaay <laughs> waaw léegi mu bañ mu bañ mu bañ léegi bu mu defee noonu bu mu bañee wax dëgg yàlla ma ma jóge foofu di ñibbi dajewaat beneen sama beneen nijaay muy ñibbi. parce que marché ak mën na faa dafa sorante mhm. dox ko day metti suut koo xam ne lekkoo mhm. naa lekkoo lekkoo dara parce que yaa ngi xiif mhm. lan moo la yóbbuwoon marché nga dem dox dem jël si watiiri euh, costaud xam nga costaud lañ ko wax comme lan laa ko mën a waaye sax borom wutil jox lay jox wutil nga dem liggéey si boo ñëwee nga am si mhm. dara nga jox ko mhm. léegi ki nga la ki la waroon jox joxu la joxu la ngay ñibbi noonu nga dajaw sa sa beneen mbokk mu ñibbi ngay la lang mu ne ma eh wàccal bu lii bu mu ko defati bëggoo lii nga continuer noonu mhm. nga wàcc di dox nga wàcc ko ne di dox waaw continuer wàcc noonu ba si deux heures deux heures deux heures comme ni naaj bi tàng nga ñàkk tooy xep nga ñëw fekk sa yaay wax dëgg yàlla mu ngi doon liggéey moom it Mhm. fekk sama yaay mu ngi dem liggéeyi euh, affaire mbindaan mhm. ndax pour indi ci kër gi kër gi yenn saa mu liggéey koo am te doon liggéey koo xam ne sax wax dëgg moo ko mën a jur wante sa sama sama yaay bu ko waxee léegi doo dooma wutal sa doom bu jigéen pour mu ma liggéey yéen ma sax moo gën ma lay liggéey yow mag bu jëm ma ko mag ma ko ah sama mag sama ñooñu ay xale lan tout tànk na mënu liggéey te yow yaa ma mun lii mun ah wax dëgg yàlla mun ma la yónni mu ne ah sama yaay ma ko doolu garaawul man moom instant bàyyi ma nag sa xale si sa suuf man mooy instant loolu introse ma ma màgg nga màgg maag wala ma ma lii nga introse ma waaw kay dama bëgg nga jox ma lu ma xam ne mo damay mën a yóbbu si njaboot bi léegi nag après xam nga rek mu yàgg mu ju après mu jóge foofu mu jóge foofu parce que kooku nee na ma mënul liggéeyee mag hmm. sama yaay jóge foofu ni wax ko kon dangay ngay arrêté moo ko da ngay arrêté ma arrêté ma ñëw dem liggéey fi nga xam ne nooy tayee dugub bi hmm. ku tudd Aziz. Ah. tey dugub bi nga xam ne boo tayee après de tay boo tay ñu jox la cent franc nga dënd ko muy cinq cent nga ñëw dem marché dugge ko. Ah. jox ko sa njaboot. léegi bu ma ñëwee sama yaay ma ñëw fekk ko sama yaay man ñëw fekk ko muy jënd benn mbuus mburu ah. benn mbuus mburu lay yor ak benn café boo xam ne café kese la wax dëgg yàlla ah. ma ñëw mu benn mbuus mburu mu mu sëdd ma ko man de sama yaay man de marché laa jóge ma sama nijaay boobu wax dëgg yàlla dama ko fekk foofu. Mhm. dama ko fekk ma ko abal ma ma dawal voiture. mu bañ mu ma ni sama yaay ma bu ma boobu maa nekk ma bu ma tekkee duma ko dimbali parce que kii xool ni ma def est ce que sama yaay mhm. mel ni yàlla dama waroon man dinaa. di nga tekki ami dara. Mhm. billaahi wala azim barke Seydina Muhammad muy ma moo ko bon bu ma tekkee du ma dimbali parce que xool kii li ma def nii mu yor wuti ba ma dimbali xiif doxee marché ba fii aw ma sax li lii man sama yaay wax sama yaay wax non kii sa sa sa mbokk la boo amee dimbali ko. dimbali ko li nga def moom sama yaay dagg si nguru bi tuuti jox ma ma xel si tuuti café bi jox ma moment léegi muñal ba muñee dina jeex. wallaahi si mu ma muñal ba muñee dina jeex moo ko bon bu ma amee du ma ko dimbali mel ni parce que noonu nit nit ñax mi. nit ñi ah. man dama xamoon ni. gisoon nga loolu quoi. gisoon na loolu. léegi nag loolu bu weesoo ma. man damaa damaa jaar fu fu métti foo xam ne boo toogee fii nag di ko expliqué da ngay lii léegi parce que bu nga jógee daara encore nga fekk benn néeg boo xam ne ay xale sax xale yu jigéen ñi nga xam ne ay sarak la ñoo fa nekk nga bokk ñoom foofu bokkoo ñoom néeg dama doon gën sa waañ bi laa ma fanaan ndeysaan waañ boo xam ne ay sakkat la encore waaye sama yaay bu ñëwee day fay la fay day fay euh, taal bi taal bi jël jël ay morceau teg ci kawam pour nga mën a tëdd ci kaw pour ma jël ma jël benn sër lal si jël dafa baroon dafa tomboon naaj. Hmm. dafa bari ay yoo. Hmm. ma tëdd mu mu defal ma muskeer ma tëdd léegi nag sept heures bu jotee balaa sept heures damay teel a yow yenn saa yi xam nga da nga biddanti yenn saa yi ngay biddanti foofu léegi am ay taalibe ay yeneen ñoo xam ne bëggoon ñi xamal la fan ngay fanaan wante dama ko doon làqatu dama tëdd bu heure jotee rek ma jóg bëgg ma kenn xam. balaa kenn yow nga génn nga génn foofu balaa kenn di yow ma jóg wante bu am na boo xam ne damaa biddanti. bañ ñooñu dima ko jiwe noo ah yow Ablaye ci wàññi lay fanaan ci wàññi lay fanaan ah Ablaye li moom loolu mu dem ba siin foofu yëpp te dama ko doon nëbb xam nga loolu lépp mais moment boobu après rousseau pour génn da ngay ruus wante dara mhm. parce amoo foofu fanaan fa nekk amoo fanaan te am am benn jour mu jëkk-jëkk mu ngelaw taw taw bu metti ñëw ramassé néegu ñax bi taw taw bu metti nga jógee génn si te mënoo fanaan jigéen nga taw taw bu metti nga dugg sa biir néeg yaay bu sibitee nga nga delluwaat si tooyaal bi te niig boobu encore bi nga jóge sax tanu ko xanaa da ko tane tuuti rek waaye moom day seen moo tax euh, képp koo xam ne jaar nga jaar mu métti rek xëy na à la fin day day neex waaye avant mu métti avant mu neex moom mu métti parce que après loolu ma am kër sama benn mbokk ma xam ne ma yàlla da may ma dem di ma fanaan mhm. dafa fanaan wax dëgg yàlla mu jëkki-jëkki feebar dikkal ma muy sëkkat sëkkat yu métti yooyu xam naa da koo tegoon feebar bu bon bi muy jàmmoon bu fekk lool lool li la tooy moo ma jàppoon mm-hmm. tooy li mu doon puus puusee di liquide yu métti yooyu ma dem ba mu tooy tooy jàpp ma mm-hmm. léegi nag mu jàpp damaa feebar feebar feebar grave boo xam day wàlle quoi day wàlle mu jékki-jékki gën ma néegam dafa jékki-jékki wax ma wàccal nga lal nga lal suuf ma lal ma lal mu jékki-jékki bi si ëllëg sax sama papa ñëw de ma wax ko ah kii de dem dama doon sëkk sëkk bu métti rek wante mu jékki-jékki wax ma wàccal mu ne ah xanaa du diw <laughs> lu ma la si tegal ma gën a doon néeg bi ah dina ma gën a ah baax na ne ëllëg sax nga ñëw rek moom mooy eh gën a néeg gën na sama néeg <laughs> wallaahi moom alu ah, na sama néeg laa wax ma gën ma toog fekk mu ma toogee ma ñëw toog sama yaay ma ko ah diw de gën na ma néeg bi ba àgg na la néeg ah garaaw delluwaat fi nga doon nekk rek fi nga doon fanaan ah parce que delloo lan fan nga fanaan mënoo neen yow mënoo fanaan xale jigéen ñi. la dellu si waañ bi delluwaat si waañ bi ma delluwaat foofu waate bu ma delluwaatee foofu xam nga yàlla suñu borom hmm. mooy mooy moom ne moom rek mooy maye kese waaw dara amu lu dul yàlla suñu borom moo fi nekk de fii yàlla rek moo mën yàlla rek moo am te yàlla rek moo yor fii xool doomu aadama yorul wërsëg kenn kenn yàlla rek moo am yàlla rek moo mën parce que hmm. bi ma demee nag ma xam ni yàlla rek mooy sës sama yaay dem na ba boo leen ko noo dara parce que dama àdduna moo doxee noonu boo ñàkkee kenn du la lijjën kenn du la faale kenn du la wax dara damaa ñëw jàpp billaahi wallaahi wa taala mhm. jàpp ba set wicc parce que boobu guddi bu mu bàyyi sama yaay tëdd ma ko tëddal garaaw maa ngi tëdd ma bàyyi ba guddi guddi ñëpp tëdd ñëpp tëdd nga jàkkaarloog yàlla waxam jàkkaar suñu borom ma ko yàlla mi nga xam ne yoo amoo ndey mhm. amoo bàyyi fekkee jur la juróo kenn maa lay ñaan yow yàlla na nga ma may xam-xam bu bari mhm. ak alal bu bari bu ma mën a sama waajur juri? ak li nga xam ne xeebe xeebaay bi ma xeebee bi ma xeebee ba état yi am parce que am na sama benn mbokk boo xam ne bu mu ñëwee sama yaay mhm. euh, dafa wax sama yaay ñëw wax ah kon diw diw ko doon ngénte lu tax waxuma ko kooku wax ko tontu ko ba ko kan mooy déplacé fii di ñëw sa néeg bi di la wax. diw day ngént xam nga xeebaay boobu. parce que xaaruñu ci moom dara quoi. xam nañ ne mënu mënu leen ah, dimbali ci dara. mënu am waaw loolu lay wax. léegi mu am nga loolu lépp bu lii rek après nga ñaan suñu borom wax yàlla na ma lii léegi la parce que bu may ñaan yàlla. wax dëgg yàlla maa ngi koy fàttaliku bu baax maa ngi ko bàyyi sama ñaan naa yàlla mu dikk jékki mu am ngelaw bu sëdd guy bu ñëw. Mm-hmm. après mu jékki-jékki ma xam ni parce que am na foo xam ne moo ñaane yàlla am na yooyu ñëw looy sant nga xam ne sa ñaan nangu la mhm. wax dëgg bu ma ñaane suñu borom wax dëgg yàlla sant naa li am na lu lu luy xew après si la lu tegul si ay ñaar ak ñett ak si la ma yàlla ubbeeree commencé ubbeeree sa wax la mbir yi mbir yooyu yuy dund dafa métti ba instant ma nekk si dégg ñax boobu est ce que xam nga ni si néegi ñax boobu après ma dem si borom kër bi borom kër gi nag wax dëgg yàlla xëy seytaane ñu nekkoon si biir kër yi dox sama digg man ak moom sama yaay ak yooyu wante bu ah. am xol bu rafet la wax dëgg yàlla ah. parce que bu mu ñëwee moo ko wax dëgg yàlla maa ngi maa ngi commencé ñaan ñun ñu ñu commencé ñëw par ndànk naan moo ko wax dëgg yàlla sama néeg yaay moo fi nekk is doomam dimbali nga bàyyi ma ma defal beneen néeg ñax bu nekk fii pour ma mun see di ah. res ma wax dëgg yàlla moom nangul na ko dama ko accepté waat doomam moo bañ doomam moo bañ doomam moo bañ ba instant yi doomam poos bi ak sama néeg yaay dana sisoo saket la dem instant moom day bëtt fii xet bi du dugg sama biir néeg yaay te moo seen mënoo dara parce que seen kër parce que seen kër la parce que seen kër la te mooy taaw dafa bëggoon ngeen génn quoi dafa bëggoon ngeen génn parce que loolu la dafa bëggoon ngeen génn ma génn leen fii dama bëgg tabax fii fi nga nekkee côté bii nga nekkee dama bëgg tabax te dama bëgg takk jabar mu jël poos bi xam nga poos poos bu mel nii boo ko bëttee. Mmh. teewoo bi nii la war a jëm. waaw waaw moom nii la ko jëmal si sa da koo. si biir nekk sama yaay. te moom paa bi mu da ko mel da ko xawoon ragal parce que doomam la pour di buggul lii nii wax ma ko sama yaay sama papa nu mu wax moom ah bàyyi la ko foofu. Mmh. bu ko kenn wax dara teewoo boobu bàyyi ko fa xet bi garaw na dugg. yaa ngi dégg mu jékki-jékki néeg bi comme ni na néeg bi ñax bi nu mu doon euh, yëngutu ngelaw bi ak yow mu. affaire benn benn jën. Mhm. xam nga jën yi. waaw mooy bant bi taxaw na bant boobu mhm. fëkk. sama euh, papa dem ba. si mhm. gannaaw am na ay ay mbaar nag yu fi nekk mu jël si benn def fi booy booy ba ñëwaat encore kooku doom paa ko ma ko def xam nga loolu boo koy dund da ngay ba instant affaire da lay métti. ñu ñëw ko après sama yaay sama papa nag jam jaaseem. dem ba àll ba dagg benn bant ñëw samp ko foofu. ok moo tax kon jaar-jaar nga wax moo tax ma wax sama jaar-jaar fini ñu jaar ak fini ñu egsi tey. nga xam ne lépp gis rek sa àdduna muñ la ak yaakaar yàlla. yaakaar yàlla waaw mu lay jàppale. Mm-hmm. léegi bu mu loolu bu mu amee ma dëgg yàlla après comme loolu du après dund nañ fi lu yàgg comme après am benn gan boo xam ne la benn guddi sama yaay ben gan boo xam ne pël la wante xam nga Thiès. dafa rëy. Hmm. pël bi nag wax dëgg yàlla pël la sunu doon sunu mbokk daal waaye jigéen la dafa guddee àll lépp bu mu guddee àll mu ñëw mu ñëw mu ñëw ba si sa kër gi. Hmm. après bu ñu demee foofu seen olof yi ñu wax ah seen mbokk yi ñu ngi fi hmm. si kër mbokk yi. seen kër mbokk yi ñoo nga dem foofu. parce que ñu ngi noonu wante mu ñëw daje sama yaay moo ko ah man de jigéen laa wax dëgg yàlla jigéen laa wante aw ma fu ma. fanaan am na fu ma fi guddi naat damaa réer sama yaay ah man de wax dëgg yàlla dañ abal maa ma dem wax ak kër gi borom kër gi am na jigéen benn benn mère moo xam ne mooy magam sama yaay ñëw wax kii de jigéen jigéen la de amul fu mu fanaan ma sañoon nga nga ko mu fanaan ci kër gi mère bi da koo toon bu ko yow ñuy ah, xuloo xuloo ba mu wax ko adduna du yàgg ba nga ilif kër loolu mère bi wax sama yaay donc àdduna du yàgg ba nga am sa këru bopp quoi. dama am sa kilif bopp ba am sa. këru bopp léegi mais après mu dem na xam naa maire bi dem na ba si kanam xel bi yedd ko. Mhm. mu jékki-jékki woo gan waa Kara wala ñëwal ku jigéen ko ñëwal waaye ñëwal ñëwal nekk ñëwal toog mu ñëw kooku nag gan bi jigéen la parce que nit kenn parce que kenn xamul kenn xamul nit la kenn xamul lu mu doon. Mhm. parce que daf koo gis rek mu ñëw toogal sama néeg yaay fële. sama yaay dem wuti trois cent xaw ma lan mu defal ko reer mu reer mu xëy après ko maire bi ñëw si boppam mu ñu yekk reer mu dem fekk ko fa moo ko ñëwal reer mu bañ ma ko suur naa ma ëllëg nii mu kook fanaan sama yaay benn la woon sama papa wax dëgg yàlla mu lal mu wàcc suuf mu bàyyi maire bi ak sama ak maire bi fanaan ci kaw lal bi bi xëyee sama yaay seet dee sa fekk yoroon na fa deux cent mu defal café defal loolu ak mburu jox ko mu dekki mu ndekki keneen ñëwaat encore si élection moom si suba si moo ko ñëwal ndekki mu ne suur naa mhm. bu muy dem parce que lu mu ko wax lu mu parce que li mu ko wax parce que li mu ko wax lépp mu si kooku mu ngi koy wax mm. yow moo moo kër ba pare di ablaate loolu moo ko metti moo ko metti ba tey bañ na bañ na sama bañ na kooku dem ba léegi lekku lekkam nangul fanaana moom ne nangu def loolu kook bu bu muy bi élection bu muy xëyee mu ñaana sama yaay ma ko yàlla na la yàlla dimbali. Uh-huh. yàlla na la yàlla teral. Uh-huh. yàlla na yàlla musal yàlla na yàlla may xéwal yu bëri. Uh-huh. pourtant yàggul dara man ma ñëw ak indi teraanga est-ce que kooku nit la woon parce que sama yaay nee boobu la ko mujj gis te tey bu mu ngi koy wut fu nekk pour mu gis ko ba tey mënu koo gis. pour wan na ko sa ñaan bi nangu na. mais mënatu ko mu mënatu ko gis. parce que yenn saa nit mel melokaanam. nga xeet ko fekk xamoo yàlla da ko yabal pour mu ñëw wala mu indi la wala lan la ko yàlla def pour mu lii la fekk doo xam. Mm-hmm. parce que tey ba tey sama yaay nee na tey boo ko mënoon gis tey tey tey tey. Mm-hmm. dina ko wari ba mu xam fu mu gis mu njëkk teraanga jox ko. teral ko teral ko. Mm-hmm. waaw sama yaay nee na mënu ko fa gis. mënu faa bëgg boobu la géej. mais yow ci kaw loolu yëpp tey jii euh, yaa ngi naan ñaan bi nga doon ñaan nangu na te ba nga jóge daara tamit ñaar at nga def daara. daara la nga fa dund lu metti waaw daara nag dund naa fi lu metti parce que xam nga yenn saay yenn saay dama dem doon ye yeewaan daa nga yelwaan yeewaan yi bu mu yeewaan après yenn saay ñu jógee ci ci euh, Louga dem si lu ñu dëkk bi ñuy wax Kër Massar gannaaw Kër Massar muy Corona mm. côté mm. Waalo suñu mm. cherry. ceeb yi léegi bu nekkee daara man nag yàlla def na ma damaa gën waaw dafa am suñu mag daara boo xam ne suñu mag daara boo xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. foofu la nekk. waate mu dañu dañu doon dóor rek waaw dañu dóor boo boo xam ne loolu dañu doon dóor ba après ma da ngay liggéey ba sonn pour mu may la ndox nga naan sax problème du la nangoo may da ngay maar waa du la nangoo may mu jékki-jékki rek am benn jour nekk poudre yi ñu def ci ceeb yi ñuy rey mbooti affaire yi. Mhm. poudre yi ñuy rey affaire yi mun sax. gunóor yeeg yooyu gunóor yi ak yooyu. moom la sotti ndox bi jaxase ko. pour ngeen naan ko. mu woo ñi ñëpp nit ñi naan ñi naan man ni man sama xel man yow yow kii musul may ndox dañ ko doon ñaan musul may tey mu bëgg la may ah, ma ma bañ ma bañ ñëpp naan ñëw di ulu ci te biri di ulu di ñii ci sonn te biri di metti te nii mu ñëw si sëriñ wax ko ak ah, nekk kenn ki ba sax benn koo xam ne moom moroomam la wante kooku naanu kooku bu ne moo ko boole seen moo ko diwdee moo jël produit bi boobu def ko taal bi yëpp naan ni ñu si bopp waan yàlla def nag kenn déewu si moom oh. waa sëriñ mu yóbbu ko si àll bi jël yeew ko dóor ko dóor ko dóor ko dóor ko ba mu sonn ba mu sonn mu indiwaat ko parce que kooku day jëkki-jëkk mm-hmm. naaf naaf ceeb yi uh-huh. day jëkki-jëkki jël almet dafa nekkul ko is te almet kose taal taal ceeb bi yëpp taal teel bi taal àll bi yëpp dafa nekkoon bandi dafa nekkoon bandi ba ñëpp ñu ko ragal waate man it dama ko gën que man mus lu may ndox mus lu may ndox mu jékki-jékki tey lan moo tey mu jékki-jékki mu may ndox man naa naanu ma ba naanu ma man man ma dara doon ma parce que naanu ma. mais daa nga dem kër di waa ñu toroxal la. waaw dama doon yelwaan xam nga tey man amoon na ku nekk am na yaay daara. Hmm. waaye saa yi da am am koo xam ne benn meer boo xam ne day baax xol bi set ba borom mooy bon. Hmm. parce que am na benn jour ba ñëw di lekk wax dëgg yàlla di lekk lekk borom këram wàcc rek mu jóg eh jugal taale bu fi lekkati génn acca ba fi génn ko ñaari yoon ndaxte loolu lépp dangay muñ nga xam ni doo daara mu mel noonu taalibe day yawaane bu koy lekkati mu ñëw ba ko eh kii bu ñëwee tibb mu ne mu ne tibbal potam bu mu lekk bu mu bokk xale yi di lekk acca xam nga loolu lépp après da lay metti mhm. loolu lépp dund naa loolu moo tax jaar-jaar wax dëgg yàlla bu ba tey dama lay wax moom dafa metti mais tey jii te encore mhm. waalo fi nekkoon mhm. loolu sa xamul dafa nekkoon jamono yooyu dama dem nekkoon ba instant yi boo gisee tey man mën naa toog suba ba ba ba ba jot du xiif dan lu me euh, euh, xiifaay moom moom moo moo sonal parce que loolu xiif dana nekk foofu waala dafa sol dafa sol dafa sol dafa sori dama doon xiif xiif ba par événement la moo doon am foofu comme ndugg comme Marseille yi luuma yi mm-hmm. moo fa am léegi bu ñu laalee seen cee seen li ba dem xulit naajo yi xam nga naaju. Hmm. doom yi. waaw ñu xollati ngay jël li lekk ndax xiif. metti woon na man mu daara ba mu jaar dafa métti da ngay xollit di lekk ndax xiif. nga xiif doo gis loo lekk parce que dëkk bi dëkk bu ndaw la dëkk bu ndaw la da ngay dem yawaani tey ni may sarax la tey doo sarax la da nga boole xiif da xiif. te loo nga dund yooyu yëpp mu métti. Hmm. te teewu nga ànd ak sa ngor. Hmm. léegi lan la la yàlla dimbalee ba nga xamante ne yow la nga loon dund. weesu nga ko ba yaa ngi si beneen monde. métier la boo mën ci diggante bi xam-xam la boo xamante ne dalaa dab ci yoon bi. non comme ni ma ko waxee rek xam nga xam-xam bu yàlla indi la. parce que hmm. xam bi nekkul loo xam ne nit moo ko jox wala nit moo ko yàlla suñu borom moo ko jox. Hmm. parce que wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee. Hmm. jàpp naa julli naa ñaan naa yàlla soo na ma xéewal wax dëgg yàlla. xéewal boobu nag tey mooy ñëw ba isaan yàlla sol ma lu mel ni xam-xam boo xam ne damay si seet di gis. damay ñaan ni mooy nangu te loolu yombul si doomu aadama wante yàlla comme ni mu la koy yàlla ci xol bu rafet la lay dimbale ak xel bu rafet hmm. loolu da wax dëgg yàlla dimbal na ma si ba isaan yi tëdd naa si hmm. maa ngi si dimbale doomu aadama yi maa ngi si jàppale doomu aadama yi hmm. kon tey jii buñ dee xool daal li nga xamante ne mooy sa métier bi la yàlla may mhm. te yaa si teral say wajur ba lépp lu nga doon dund lu metti paase nga ko mhm. mooy xam-xam boo xamante suñu borom daf la ko jox ngay si dimbali jaam si mhm. wàllum ñaan la quoi waaw si wàllu ñaan wax dëgg yàlla si wàllu ñaan la parce que bari naa ay nit yoo xam yoo xam ne wax dëgg dara dara def na ma ba def na milliardaire dimbali lu 300 millions sax dina dina alhamdulilah si ay nit yoo xam ne. ñoom dina ay ñaar ba yàlla def seen aaju faju mais ginnaaw bi nga dundoo loolu mu metti lool suñu borom indi la xéewali yan relation nga am ak dëkkandoo yi nga xamante ne ñoom nga dëkkal. biir Thiès waaw parce que comme ni ma la ko xam nga bu yàlla dimbalee ba nga am te am nga am nga jaar-jaar wax dëgg yàlla chaque bu jot muy Korité wala Tabaski wala dinaa jënd am na ba tabax rek paase rek 11 millions laa génn parce que comme noonu la koy sama yaay tolloon na foo xam ne na tabax gi dañoo jot mu dem di wuti tay mu am ak tay mu am tay du am yeesa loolu doon tase yaakaaram sax fekk boobu mu ngi nekk jigéen bu wéru mu yóbbu boolam noo lay wàññeekoo mu ne ah dem naa de waa ni joxe na ñëpp nee jeex na ngi ñëw toog ñëpp du togg te doo leen togg togg tabaski da doon jox dunu dunu dunu dunu dunu tabaski dañu ñu tibb ñu gaa yi noonu doon tibb ku nekk joxe sa yàpp ñu doon ñu doog a kon moom kon événement bu jotee tëbës tabax bu jotee damay jënd ay 15 nag. Ah. séddale ko bu tëbës ki jotee ma jënd ay camion xar di ko séddale. Ah. bu koor di jotee def noonu parce que comme ni ma ko euh, ba si ba si ba si euh, koor gi da doon métti ba instant yi wax dëgg yàlla. Mm, pour looy ndogoo sax problème la waaye nit ñi ñooy ñooy ku nekk mooy indi dara jox la jox la pour nga ndogo. kon tay bu demee ba loolu nga jaar si ba yalla di yalla yàlla dem ba dimbali la yow loolu nga def da nga koy delluwaat si askan bi nga xam ne yow jaaroo ngeen fu metti mais tey jii lan ngay wax ñi nga xamante ne ñu ngi dund lu metti te jàpp nañ yàlla moom ay mbiram ñaan bi daa yéex génn jor sa jaas yi tasante fi benn shampoo yi na ko jox ma li nga yor mu jox la ko nga dem faj sa soxla jàpp nañ ne loolu moo gën a yomb tey jii ñooñu lan nga leen di wax loolu muy wax loolu baaxul parce que pour nga tekki si lu jafe la man gëm naa ni esaan yi nga jël sa jaasi fekk doomu aadama fexaw nga gor ko nga lëkkal nga jël alalam du loon jëriñ te dalay yàq parce que doo mun a fexe fexe ba nga am si alal loo mën parce loo am alal day seeyaat parce que léwul kon képp ku xam ne yaa ngi dund métti ama muñal boo muñee yàlla dina la dimbali yàlla dina la tase parce que képp ku génn képp ku xam ne yàlla indi la si adduna bi dina la jox sa wërsëg wërsëg jaru yàkkamti boo tëjoon si néeg bi sax wallaahi ba tëjoon sa néeg si sax voisin bi dina la fekk sa sa néeg. social bi ngay dund danga koy def parce que da nga bëgg nit ñi àdduna bi xam ko wala danga koy def parce que da nga dundoon lu metti xam na kon am na ay doomu aadama yu dund yu metti naa leen jàppale ba tey ji ku yëkkati woon sa numéro téléphone composé woo la facilement lay jot pour diis la soxlaam wala. waaw parce que social bi mooy def def ma ko pour sax gis parce que comme la ma koy jaar naa fu metti kon bu ma yàlla teralee kon dénkaani la yàlla damaa natt bu pare natt la ma pare mu teg la ay coono teg la métti teg la jafe-jafe pare après mu yëkkati loo jox la jox la ndam jox la teraanga te lay natt ba xam yow est-ce que yow bu la tollee fii est-ce que di nga dimbali ñi nga xam ñoo nga tane moo tax may def social boobu wante def ma ko pour ngistal def ma ko pour lii xëy na boo gisee tax keroog boo gisee tax waa comme télé yi youtube yi commencé wane loolu xëy na dañuy wax booy def lu baax moom ñëpp dañ see gis seen bopp koo xam ne yoon nga teraanga te nga ko see gis ngeen ko suñu invité bi lépp loo xamante ne jaar na ko mu dund ko mu metti sax mu partage ko ak yéen c'est pour rek nit ki xam ngeen xam ne nit ki lépp looy dund rek dafa neex suñu borom bu ko neexoon suba suba suba mu génn la ci kon képp koo xamante ne yaa ngi dund lu metti rek pour man boo mu muñee rek suñu borom dina la fekk si parce que yàlla rek mu mën a dimbali doomu aadama bi yàlla kese moo mën a dimbali doomu aadama bi ngeen xamee ko noonu lépp lu ñuy def lu ñaaw ñu jël ko teg ko fee duñ def nag lu dul jàll si deuxième partie bi nga xamante ne mooy album souvenir wan leen ay foto ay vidéo yoo xamante ne ay souvenir la mu expliqué ñu lii lan la ko fàttali ak moment yooyu lan la si loon jël ngeen ko bi nag ñi ngi dem si deuxième partie émission bi nga xamante ne moom mooy album souvenir ab Ablaye ba léegi ci émission bi waaw émission bi de xam naa ne bëgg naa ci lool tey jii su ma photo bi boo ko xoolee lan la lay fàttali. non lii wax dëgg yàlla mu ngi may fàttaliku loolu yàgg parce que bii maa ngi doog a tàmbali nag si ndéeg ñax mi laa nekkoon boobu waaw ah. si ndéeg ñax mi laa nekkoon wax dëgg yàlla gis nga mm, lii dafa tombé sax. ministre bi ñëw ba dem parce que jamono yi dama toog sama yaay ma ko yaay fekk xam-xam affaire yi commencé dama ñëw bëgg ma wax yaay ma jàkkaarloo rajo bi ma ne yaay est-ce que xam ne ren bi dinaa laal au million sama yaay ree ma wax yow yow yow yow yow lan nga mu ne fekk bu nga taal sondeel parce que amu courant yow lan nga mu ne laal au million trois cent tëx la cinq cent tëx la ma nga ah man loolu laa gis di may seet après benn koo xam ne jarba benn koo xam ne dafa jarba koo xam ne presque jarbaatam loolu la mhm. mu ñëw mu digg mu jóge foofu ndox ko am na ke doom ajuma bee am na lu mu mun demal mu seetal la ma seetal ko mu boole ma ministre bi ministre bi mu ñëw jour boobu mhm. dafa ñëw fekk ma génn mhm. mu woo ma teel ma fan nga nekk fekk ma génn mu ñëw mu gaari ay guddi mu ñëw wax digg yàlla somme un million la franc CFA la ma jox si laa defaree ndéeg boobu si laa décor neef bi jën si bantloo jën si benn télé bu ndaw jël ay sër defar ko ba néeg bi rafet néeg ñax bi moom loolu la may fàttali dund lu neex kay bii nag waaw bii moom dëgg yàlla boobu moom fekk na encore encore comme noonu waxee yépp si biir néeg bi néegi ñax bi bii moom it encore tax dem na dem naa ba am na benn koo xam ne mooy benn maire koo xam ne sama sama yaay la presque maire si si si soxo la tudd mu faat si soxo mu ngi dëkk Pikine mu jël ma yóbbu ma boobu ba ma toog benn booy ñaa booy ñaa jamono yooyu booy ñaa am na ay jamono yoo xam ne am na lu ma ko joxoon loo xam ne jamono yooyu la ma li la ma boole moom wax dëgg yàlla ni am nii gis boobu maa ngi doog a jógee Dakar di ñëw faat si soxam moo ma boole woon ak moom parce que kooku politicien la woon wax jamono ab Ablaye Wade la woon kooku wax wax dëgg yàlla boobu loolu la may fàttaliku boobu maa ngi doog a ñëw mhm. ak mbëri waaw waaw waaw commencé naa wala ñooñu mooy nii bii moom it encore boobu moom dafa tombe <laughs> bii moom encore dafa tombe moom it wax dëgg yàlla ah ma juge bii moom si xew laa juge woon hmm. si xew laa jóge xam nga bu la yàlla commencé teral di fa ngay jënd ay yére di ñawlu di léegi commencé di la invité comme daawuñ la invité kay waa kay commencé invité ak yooyu mhm. si laa léegi moo si laa foto ba commencé dund li ci biir kër gi sàkkat bi waa kër gi ñu la loon tere di la xatal waaw parce que parce bi bi mu ngi tombé tabaski boo mooy ministre bi mu ñëw tabaski la toll mhm. dama dem jënd xar boo xam ne mu bu ñu tiree xar ñoom yëpp yëpp sama xar moo si ëpp parce que damaa jënd xar bu jar cent soixante quinze mille boobu jamono yooyu mhm. xar bu ngànd boo xam ne maa sol lépp mat na rey na ma teelal ko loolu mooy sama nga jeex ma ko coono gi jeex na tey bis ni tey parce que boobu boobu ministre bi jox na ma un mhm. te am nga un jamono yi mhm. xaalis la si la kooku ndax a sukki mën naa wax gannaaw yàlla ak ni kooku mooma sukki parce que bu mu ñëwee ñëkk gars yi commencé ñëw na boobu dugguma youtube boobu sax youtube xamaguma si laa lii app ni tabaxal ma kër may ñaan nii gis yàlla def Macky Sall di leen fal parce que loolu lii ma wax lépp jamono Macky Sall la <laughs> jamono Macky Sall Macky Sall wax dëgg yàlla mu commencé di leen fal di ñoom it di ma boole ñeneen di ma boole ministres yi di ma ministres yeeg directeurs yeeg ñoom ñëpp ñëw ku nekk di indi sa somme. te loolu yëpp nekkul loo doon sa maam nekkul. nekkul mhm. loo xam ne sama dama ko doon sama maam parce que sama maam amoon na xam-xam comme lu ma la ko waxee. wante bu ma parce que sama papa mu ngi am 18 ans. Mhm. wante ñi yenn saa yi dañuy wax lu nekk si maam day jóge si. day delluwaat si sët parce que sama maam boobu amoon na xam-xam lool jamono Senghor amul ku ko mënoon ah, xam-xam si jamono yooyu mhm. parce que demoon na ba a comme lu ma la ko am na benn jamono yoo xam ne mus na dem àll boo xam ne mu ni fii kaddu gi de dina mus nekk dëkk te kaddu googu nekk na tey dëkk mus na tukki mu ni mu am ay feebar ku affaire bu mu jàpp bi benn xale mu ne ah dëkk ba de am na lu fa xew bu mu demee loolu moo fa am mhm. kon loolu moom di xam-xam boobu sama maam la woon wax dëgg yàlla demoon na ba instant comme dafa dafa nekkoon koo xam ne ku oyof la yërëm du sol yëru yu baax di ay saaga mu daw mu romb jamono oto yooyu yombul mu romb borom oto mu ni doon ma yóbbaale doon ma yóbbaalee fee mu ni ñoom ñu ni ah non non ni duñu yóbbaalee dof waaw <laughs> kooku la ko wax fekk yëre yi la fekk yëre yi nag mu jël benn euh, day béy béy mm-hmm. parce que amoon xam-xam mu jël day béy mu sànni ko si oto bi oto bi tàkkul mu dem ba wàññi ko fekkal fa ñuy def kirti kirti mu ni ma yéen da ngeen wax dañu yóbbaale ndof ah parce que loolu xam-xam boobu mooy xam-xam comme genre tur ak xam-xam boobu boo jëloon pees oto bi dugg def sa beneen oto bi sa day paal léegi ñu jéggalu ko baalu ko après mu jëlaat beneen day bay defal ko bi ñu takk defal oto bi takk kon xam-xam dafa am parce que moo ko yéen moo nii mu ni leen dama leen bëgg wane rek yéen bu ñu ma waxee yóbbaalee man mm. da ma waroon yóbbaale rek wala bu ñu wax bu yóbba du ma yóbbaalee dof loolu ba loolu moo ma wax la mu dof bii ka nag kon xaar ma wala kon li li ko yàlla may. parce que dem na ba wàññee fekkaat leen foofu si oto bi fekkaat leen foofu waaw. Mhm. photo vidéo bi. moom comme lu ma ko dafa am koo xam ne maa ko jël à charge bëgg yóbbu ko bitim réew pour mu faju ci. parce que comme hôpital moo koy war a faj te hôpital yi ay indo lan ñu ngi waxtaan ak ñoom wante maa ngi xool ban fu yoon laa war a jaar ba yóbbu ko indo mu war a fay ji. te hmm. encore da àndaale koy faj. bu ñëwee aéroport ñoo koy jël ñoo koy yóbbu hôpital koy faj ba ñaata lan la wax sax nga fay nekk si opération bi. treize mille dollars. treize mille dollars la. parce que huit millions rek moo koy lii te yaakaar naa donc dañ ñoom dégg naa ni dañ koy faj ba mu wér ñoom nee na si opération bi waaw si opération bi nee dañ koy faj ba mu wér. ñoom lañ ma wax nee nañ ma ko faj ba mu wér loolu lañ ma wax te incha allah rabbi ñun yooyu rek lañ am. vidéo bi. waaw ma moom maa dem si benn hôpital joxe fa 10 millions pour ñi nga ay malade la am ay problème feebar ay jalis ay feebar jalis ak ay feebar yoo xam ne képp koo xam ne ñëw nga nga bëggaloo faju boo demee nga faju ko rek tax xoolu si dara lu dul yàlla rek tax maa ko joxe te yàlla rek tax pour ñi nga xam ne dañoo bëgg faju képp ku fa bëgg faju na ñëw maa ko joxe te yàlla rek tax xool ma si état xool ma si kenn sama ñàkk la maa ko joxe addiya yàlla rek tax pour ñi nga xam ne dañoo néew doole di képp foo xam ne ñëw nga ci hôpital def sa consultation particulièrement ak feebar bu mënti doon boo ko bu fekkee am na manes nan ko fee yëkkati jox la ko nga jënde ko suñu pharmacie bi jox la ko nga jënde ko fekkee nag da ngay day laaj nga dem jënd jee ko feneen ñu daal la ko jox ak fépp foo ko mën a fajoo comme que indi nga ko fii boo ñëw ba defee sa consultation ñu xool lépp ñu xam ne ñaataa koy faj dinañ yëkkate xaalis bii ñu daal la koy jox nga dem faju ji ngir yàlla ak yow mi sa jëmm ji nga xam ne yaa koy def dara koy def ñoo ngi lay jaajëfal di la ñaanal baax nga xam at acte noor nga def ndax yombul ci dëkk bi ndax tey ji bëri na borom doole yoo xam tey ji nii lan yor ñoo ngi ca tëdd di ca caaxaan. loolu nag moo tax ma ma def ko def def ma ko dara pour di yàlla rek tax parce que comme ni ma man bari naa ñoo xam ne tey yónnu woon man maa def minti milliardaire sax jamono toll nii lu bëgg su dëgg dëgg ma suba bu ma bëggoon 300 millions wala 500 millions dina ma fekk loolu nag si xam-xam la. ok maanaam bii da toog rek am yëg-yëg bi jël sa xaalis compter mu mat. dafa tombé ma dafa tombé ma feebar. ma dem mhm. foofu di faju mhm. ma gis ma malade yi tëdd ñu sonn ñii ma dëgg nii waa ah man de man instant problème ordonnance laa yor. ay nii ay problème ordonnance ma ma dem faju ba wér ma dem sama kër. banque banque sax laa dem mhm. retiré 10 millions ñëw joxe ko foofu pour képp koo xam ne yaa ngi bëgg faju amoo loo faju nga faju ci. donc loolu yëpp si social bi la. non si social la. ok euh, fii dafa mel ni Wally Seck la. bii Wally Seck la sama xarit la. asalaamaaleykum sëñ Ablaye Faye borom Thiès ah sama xarit bi kontaan na naa ndax boo jógee Thiès romb daral yëpp ñëw ba Dakar jënd fi xar cofeel rek ak bëgg jàppale tax kontaan naa trop yàlla yàlla fay la waaw oh, góor. Wally Seck mii nag wax dëgg yàlla <laughs> jaay na ma ay xar moom ma sant noonu sax. Mhm. waaw parce que jaay na ma ay xar. jaay naa ma ay xar wax dëgg yàlla tamit bu jot ma dama doon jaay ay xar ma dem jënd si ay xar yóbbu Cees jox imaam yi jox ñeneen ñi sama xarit la sama nit moo tax maa ko gëj a gis sax si papam bu mu gaañu waa xam naa dinaa ko seesewaat papam bu mu gaañu mu mu ànd na samay cuun mhm. ma dem ba yégal ba si mu toog ma toog ma jaale ko mu sant ma ñaanal ma wax dëgg yàlla man kontaan naa seen Ablaye ni nga def déplacé Thiès ba ñëw dakaar nga jaale ma sant na mu dëgg yàlla mu ñaanal ma xol bi sedd guy moo ko man jaale moom mu indoon foofu ci Balla la waa waa kii nag Balla Gaye la Balla Gaye nag wax dëgg yàlla mu nit ku baax la sama benn xarit moom ma ko joxoon passe woon téléphone appel vidéo sama xarit la nit ku baax la moom wax dégg yàlla ko xool bu set la am xool bu rafet la am sama xarit la euh, wala moom ak Baboy lu ñu def nag lu jàll ci troisième partie bi nga xamante ne moom la ñuy jeexale mu nekk dos à dos

tey laa mën a gën a dimbali néew dool yi wax dëgg yàlla man alal du ma du ma changé dëgg yàlla du ma meloon bu ñëkk ba ak tey noonu laa mel ku ma woo téléphone ba ma jotul xëy na dafa fekk ma jàppale yooyu wante du ma la bañ a jël. suñu baay daa marié. waaw marié naa waaw. da am naa doom bu jigéen waa sama soxna comme ni ma waxee nit ku baax la borom xol bu rafet la wante lu ko yàq moom fiir dafa jàpp ne dama koy wutal keneen loolu moo tax. <laughs> Hmm. lu nekk mu ngi koy def. lu nekk mu ngi koy def waaw. waaw bu ko utal kenn bàyyi ko noonu. non ah, ba ñeent. <laughs> non non du bàyyi ma yam si moom ba si kanam. Ah. Uh-huh. <laughs> tey jii guddi gi ñu toll nii lan ngay dund lu metti loo xamante ne xaalis faju ko. waa jamono tool toll nii li may dund lu metti mooy wax dëgg yàlla xam nga rek jamono tool nii comme bu ma sañoon. Uh-huh. wax dëgg yàlla ñi nga xam ne dama leen ànd ni may jàppale bu baax. jàppale rek laa soxla si ñoom parce que jamono toll nii du problème xaalis laa am du problème moom daraja du problème dara li ma bëgg mooy ku may jàppale parce que koo xam ne damay suturaal di ma jàppale di ma aar aar bi mooy bu gisee lu ñaaw mu wax ma teggi sama bu ay la may ko defal ma xamal ma ko loolu kese laa soxla waaye soxla ma leneen waaw loolu kese laa soxla parce que damay bëgg képp koo xam ne yaa ngi ànd na man wala yaa man nga ma li nga yàq-yàq yi bari nan ñi ñi ñi ñi liggéey nit ñi bari nan ñi def lu bon bari nan waaye yow nga jàppale ma ma parce que am na foo xam ne boo fa toll la yow it moo moomatoo sa bopp parce que da ngay dem ba instant yi lépp loo xam ne mun na mun na la gaañ te ñi ngay nekkal la la mun leen mun a jaar pour gaañ la ñi la ñi ki la mën a dimbali te mun a ki nga nekkal moo mën a jàppale parce que tey jamono toon ni tey mun naa wax ñoom ñoo war a nekk sama gannaaw. Mhm. ñoo war a nekk sama kanam. ñoo war a nekk sama côté yépp parce que mun munutu moomatuma sama bopp. moomatuma sa bopp sëñ Ablaye mos na am problème police gendarmerie wala tribunal wala dara. noo xam nga nit ku nekk dina am ay jaar jaar comme yooyu. Mhm. waaye mosuma am justice problème justice ma wax yàlla dimbal na ma ko. problème bi ma amoon mooy affaire dikkuno la woon te wax dëgg yàlla maa boobu maa ngi ci jóglu bu baax xëy na man maa ko tooñ ni ma ko tooñee mooy mm. parce que du ñàkk si doom aadama parce que sama poche benn côté bi moo amoon problème ni ko de ni maçon bi ni mu ko defee baaxul mm. ndox bu seen du dugg di dem ci jaar ci këram di jaar si këram di dem si këram moo convoqué ma fekk bu ma convoqué wax dëgg yàlla mm. moo ko xamal leen man surtout waaye lay comme comme ci biir dëkk bi man comme euh, lan laa ko mën a waaye sax man si euh, dëkk bi ñu ñëpp ñoo si yam yoon bu la woowee danga nga war a wuy da nga war a dem ah. bu mu dee ma fekk ko foofu man xaw woon sax moom ma defal pelante mu ñëw wax ma yow ndox bi lu taal nga koy jël du ko jaale sama kër ah. du ko jaale sama kër ma ko ah maa ngi ciy jéglu bu baax ma maa ko defal defar xenay defar bi moo xaw a yeex parce que maçon yi war a ñëw defar ko ñu ñoo xaw a yeex problème boobu laa mosoon am ma ko léegi yowit yow sama morom papa nga lii bu amee woo ma sa morom doom laa yedd ma nga bañ maa yóbbu si yoon parce que tey avant ma bu ma jëndee terrain bi fekk naa si bala ma def sama fondation fekk naa sa kër xar mbir bi xar bu war a daanu ma ni balaa maa defal sama fondation di ko tabax il faut ma fàttali woo maçon fay ko xaalis jënd fer jënd si ma fattal la foofu ba mu ma ba tey bâtiment bi daanul ma doog def sama fondation parce que xam naa ni bu ma defee fondation ron la rek sa bâtiment day daanu sa ndéeg day daanu te amoo doole dafa mel ni say biir wax déggoon naa nga ne daa am ñu la loon topp pour bëggoon la faagaaga waaw am ñu ma topp parce que tey bu may dem àll ba bu may dem àll ba man kese laay na du ma ànd gardien du ma ànd chauffeur parce que am na mbir yooyu jinne yoo xam ne boo koy def doo ànd kenn bu nga def am na ñu ma topp na wax dëgg yàlla buñ ma toppee nag dëgg yàlla si àll bi wax dëgg yàlla ma dama leen oto après nekk après nekk ñoom koje koje nan ma ci parce que ni muy gisee ñoom dañ mel ni nekk koje nan ma si ci benn euh, route boo xam ne. ñi lii la xam lan laa ko mën a waaye sax. waaw waaw kay léegi nag. ma fekk la fa ñuy jéem a ma gëdd sama oto kat kat bu laa ma gëdd oto jëmale leen ni tasaaroo loolu nekk xaw ma lu si jublu nag. mais xame nga leen. noo xame ma leen parce que dañoo soloon. ay copson lañ defoon masque ak yooyu doo leen xàmmee. loolu nag lépp jara jaaxal na ma nag lu waral ni topp ba lu waral ma déplacer sama kër ni topp ma ba àll boobu àll boo xam ne foofu koo fa waxul demal foofu du du ko fekkee du fa dem wax dëgg yàlla loolu nag jaaxal na ma lool ma ni hmm. ban couleur mooy sa couleur balaa lu ëpp nag balaa laay gën sol hmm. Hmm. ban plat nga gën a préféré ceeb ganaar dama ko bëgg nag <laughs> ceeb ganaar dama ko bëgg ngelunneex te yu ko wax sa tur lan la ciy teg loo xamante ne mooy sa slogan bi ngay doxee borom ndimbal borom ndimbal yàlla nga yàgg dimbali jaam amiin amiin lan ngay tàggatoo li may tàggatoo muy réew sunu réew la mhm. réew mi sunu réew la kenn mënu koo xaar ñaar mhm. li may tàggatoo mooy bu kenn yàqal sunu sunu dignité ak sunu personnalité ak sunu eh, sunu sunu sunu mhm. parce que Sénégal boo ko rek nga ni teraanga mënoo tudd Sénégal di booloo ci teraanga parce que kër boo kër boo dem wax dëgg yàlla ñu teral la. kon président Macky Sall lu ma koy digal moom sama mbokk la président Macky Sall sama mbokk la parce que ku mu ci moom yaayam. te Baaba Maal sama mbokk la te Baaba Maal ak ku Macky ak Malick um, Omar yëpp ay mbokk lañ nit suñu mbokk lañ kon bu ma soñoon moom it waa nekk sama mbokk du tax ma wax koo li nga xam ne moo am. parce que affaire Sonko ko Adji Sarr Adji Sarr bari na coow nañu jël dossier bi fekkee mënuñ xam fu mu féete na nga ko tëral. ñu bàyyi lépp mu sedd moo gën nii yeefinda yeefinda baaxu si réew parce que xool ko euh, Russie ak Ukraine li fa am parce que li fa am yaa gis nga ni lu fa am ah. mag yeeg xale yeeg hôpital yoog ñu feebar nag ñëpp jaxasoo kër mun see mucc ah. kon loolu lépp dañ ko war a musal si réew ah. kon président Macky Sall fi aji Sarr ak kii fekk dem na ba leerul leen kan moo si moo tooñ te mënul xam kan moo lii nan bàyyi lépp mu sedd parce réewam képp ku war a jot si réew mi di si jot fekkee Macky Sall moo war a continuer yàlla dina def mu continuer fekkee Ousmane Sonko moo ko war a jël yàlla dina def mu jël ko réew du nit ki moo ko jox boppam yàlla moo koy joxee nguur yàlla moo koy joxe. te encore président Macky Sall ma koy digal mooy na def wii ak noo boobu bi amoon. Hmm. fekkee wii bi ëpp na ñu woteel ko. Hmm. pour fekkee wii bi ëpp na. ñu wottal ko nga xam ne moom. gaa bu ne non mu lem ay bagages mu jël ay bagages jël keneen ku ko mën a àgg réew mi mu mm. àggale réew mi. Mm, ma xam ni moom mi wax dëgg mënutu àgg réew mi. Mm. réew mi nekk jàmm parce que Macky Sall am na lu mu war a am ba pare. <laughs> kon dignité ak personnalité bu ko dara yàqal loolu. te eh. nit ku xam naa mu ngi liggéey moom. ku baax la mu ngi liggéey mu ngi def lépp mu ngi war wante lii ma bëgg mooy dignité ak personnalité moom xaal pulaar ma man eh. xaal pulaar la lii dina teem bu ko bugguma dara lu ko yàq bu ko nguur jaral mu yàq dina teem wala personnalité am parce que xam naa ni am na am na lu muy bañ mhm. dafa am loo xam dama la ko fàtte woon laaj si dama ko déggoon si si si si yow mhm. tey jii comme ku si mel ni Jean Pouy bu bëggoon ñëw nga def ko milliardaire wala millionnaire dégg naa lu si gaaw nga ci loolu gaaw naa si képp kuy ñëw moom si kattan ba mu xoolee sa rawaan xool sa vidéo mu mhm. tombee li ma la wax parce que wax naa la li may def si ay président saya koy def si ay milliards si ay borom alal ba pare ñi am ya hal, xam na. Uh-huh. ñi nga xam ne yàlla dina leen ah, may am am am ba pare. Uh-huh. ñi am alal ba pare. Uh-huh. seen biddéew laa jël booy sa biddéew. booy sa rawaan booy si def li ñu def ma defal la si kàttanu yàlla fekk alal nga bëgg. di ko doon incha allah. di nga ko doon incha allah. si kàttanu yàlla. kon nag mbokk yi gis ngeen lii laa leen indiloon si seen émission jaar jaar. si équipe technique bi ma ànd si woon nag ak Jean Pouy ak Ousseynou ak Assane Koli di si remercier bu baax a baax a baax Pa Assane voilà si àndandoo bi ñu ànd ni jàpp si liggéey bi ba liggéey bi yëpp anto leen jox dig daje si beneen émission ak beneen invité incha allah rabbi merci. jar jar. jar jar. jar jar. jar jar. RDV. waa émission jar jar. waaw Rodolfo loo wax Billai, Billai Sollai, <laughs> Baccarà Sollai. Grazie a tutti della band, saluti al Senegal e a Jar Jar. Un saluto al Senegal e a Jar Jar. Un saluto a tutto il Senegal. Grazie a Jar Jar. Scusami aimez bien la musique eh, ciao da Jar Jar.